am hal arafta daara baada tawahumi fala yasauni illa an ashkura haulai shabab bi majhudatihim bi himmatihim لإبلاغ الرسالة إلى جميع الأقطار والعقول yàlla na yàlla barkeel mag ñi maam amari laaj numu numuzajan bala muy àgg ci tarbiya ak taalim ak yooyu yëpp tadxiya sacrifice la jëkk a def yeewi say soxna say sàq nga ñàkk sa doom say doom nga dénkaane leen dem na ba ñëwaat ba fii ci canaba ba yaakaar ne dootul gis maam Talla Seck mukk booba dañ daan wax ni ñu ko naan euh, bi maam Talla ñëwee ba gis ko ba fanaan ci kër góor gi fanaan ba xëy indi ko ni ko mu ne ah kii ah bu bu taala newoon ci réew mi de bu taala newoon ci réew mi de kon ma ni taalaa maanaam fa mu newoon donc bokkul ci réew mi ku toll sab taaw say soxna nga taddu xiya sacrifice lépp lépp lépp ixyaan bi kalimati laa ilaha illa loolu nekk na loo xam ni képp koo xamante ni ji te tazakkar war ngaa am xalaat ci loolu njëkk nag loolu soo soog agsi ci àgg ca fañ ko woowoon mu war faa joxe bakkanam ka ko fa woowoon joxe fa bakkanam moom mu dul siwaat loolu di loo xam ni am solo la loo xam ni ñun dañ ko war di fàttaliku àlluwa àll ba allahu akbar wala noonu al ilm al amal al ibada alilm alamal alibada xam-xam liggéey jaamu yàlla tanmiya mu ngi ci biir alamal tazkiyat al anfus mi ngi ci biir alibada mu jaraloon nag mu jaraloon leen ñoom ñu ñàkk lépp tubaab bi ngeen wax nii ba bi maam taala nekkee mu ñëw tubaab bi ñëw na di ko jox ay di ko décorer indil ko dund bu bari waxa wax ba pare mu ne ko amaa dund bi man li may bay man na maa dundal ren ba ma ak sama njaboot ak ñi ma yaakaar kon lii jël ko yóbbu ko ñu ko gën a soxla mun ko loo bëgg mun ko mën a dem ci sama jàkka ji ak sama tool yi mën a dem sama jàkka ji ak sama tool yi nga gis xiima bu toll waaw xiima bu toll noonu maanaam valeur bu toll noonu waaw kon ñun am nañu royukaay ay royukaay yu bëree bëri waaye lil asaf ayna nahnu al an ayna nahnu min haula nahnu maada qaddamna lil ajyal al xaadira wa maada sanuqaddim lil ajyal al qaadima والمسؤول على عاتقه بطبيعة الحال ñun biñ biñ biñ ci jotee ñun ak ñoom bañ ci jotee lañ joxe woon ñun biñ ko jëlee ci ñoom luñ joxe ñun ak lan la ñuy xala jox ñiy ñëw ëllëg loolu buñ ci xalaatul dañuy fasal mbooleem asbaabil fashal yi tax tey ñu ñu ñu échoué lépp léegi ñu ngi koy dund ak taawun amatul xusuusan ala albirri wa taqwa amatul addiin an nasiha amatul wa yuthiruuna ala anfusihim amatul jël sa mbokk mu gënal la sa bopp amatul afiqa bayna al ashxaas wóoloonte amatul afiqa bayna al ashxaas bu amatul wóoloonte ci suñu biir kayfa nasiqu bil xaaliq ida lam nasiq bil maxluq fa kayfa nasiq fil xaaliq bu ñu amul fiqa maanaam kóoluteef ci suñu diggante kenn ku nekk sa bopp gënal la sa moroom soo amee benn man koo jox sa moroom toog parce que ak raayilul awal ci noonu lañ daan dundee yonent bi loolu la jëmbat ci biir njaboot yi waaw nangu dëgg ak fu mu jógee amatul waaw isaabatu ishfaaqin wa xayrin wa naaimin samad kayf samad bi maada min mii min xayri qaailin kayfa samad aqarrat li ayatin lahu wa dalaal la ko jiitu woon isaabatu ishfaaqin wa xayrin wa naa'ilin samat bi qabulil xaqi min xayri qaailin bi ñu defee loolu nag aqarrat bi ayaatin law ñu daal di jëm dem daal di fiy jëm waaw ñun am nañu ci loolu yëpp tey ñun egg nañ ci ku dee sax ñu utal ko la rey yàlla reytu ku président joxul diw joxu la nangam joxu la nga mer yàlla joxeetu wóolootoonte wóoloowunte ci suñu biir comme ni ma ko waxe woon yërëmante jóge na fi jóge na fii ci Thiénaba fii ci ñun ñii ñu ngi fàttali bépp xale bu fi dëng mag mu jëkk dajeeg yow ci mbedd mi dalay dalay jubbanti sa baay bu wax sa yaay bu wax tey xale bu génn génnoon fi sàcc yi nga dóor nga dóor ko mbéy papaam porte la plainte foofu lañ toll Thiénaba gii ñu nekk pénc jigéen daaw ci jaar wala bu ciy jaar ab layu lay jël ab layu su ñi nekk keneen def ni layu fii def nii layu ba jàll tey xale yaa fii di sol ay miniji di jàll kenn mënu ci dara léegi nag kay fa nu sax هذه وتلك الأخطاء كيف نصحح المسؤولية على عاتقكم أو على عواتقكم أنتم العلماء المشكلة حلها على عواتقكم وعلى مسؤوليتكم أنتم فلا بد وأن تقوموا قيام الرجال ولا بد أن تقدموا ما لديكم من قوة من علم من ثقافة من عزيمة من صبر لكي نصحح تلك الأخطاء التي وقعنا فيها responsabilité yéen ñii di boroom xam-xam ci la surtout nag yéen boroom xam-xam yi di boroom xam-xam yu ragal yàlla nga xam ni seen suluk rek seen suluk dong war naa mën a jubbanti ku dëng sayyidul faadil sëriñ ak taalibe mooy mooy nga gis Amadou Maxtaar mu melo melokaan woo xam ni bëgg ngaa mel noonu nga ñëw ñu baax sëñ bi ni ngi mel daal bëggoon naa nga wax ma noo jaar ba mel ni mu laa man de nangam laay def ak nangam ak nangam nga ne ko may ma ci ndigal ma def loolu rekk mooy taalibe ak sëñ waaw léegi sëñ boobu bu fekkee melatul melokaan woowa te yow nga war koo set foo jëm foo jëm ana sëriñ boo xam bu lu dul dëgg taxawee mu jaral ko bakkan ana sëriñ boo tey xam boo am tey boo xam bu Samba Sadio taxawoon nga sëriñ boo xam bu Samba Sadio taxawaaloon tey mu yeewi ay soxnaam tas ay sànqam ak juróom mu tasaare leen ay doomam mu sànni leen ngir yàlla ana mu tey egg nañ tey sax ba sëñ bi ñaata nit nga xam ñi génne asal ñaata borom alal nga xam bi Sénégal yu génne asal asaka dong laa la ñu koy génn te pourtant ñooy jiitu ci jàkka yi ñooy mu jiitu jàkka yi waaye ana miskin bii toog war a dund comme ñépp te li nga yor moomoo ko wa anfiqu mimma jaalakum fii dañ la ko dañ la koo dégg rek yow nga moom ko miskin baa ngi dee ci mbedd lekkul naanul keneen noonu ci feebar yi nii amul ordonnance ñun ñoo ko war a jox ordonnance ak xam la man ci Arabie Saoudite dox naa ba gis ab miskin poñet ba milliardaire poñet ni ko nii maa ko ishfi ishfi maa ko aatini xaqi aatini hmm. xaqi man ko allah allah allah yusallimak allah yusallimak intazir intazir intazir taal taal maa ko teg sama bët mu ab miskin poñe ab milliardaire tey poñal fii ak tey yow yow poñal millionnaire fii tey digg ngay fanaan mun ko lan la mun ko jox ma sama àq mun naa nii wallahi maa may instant intosé intosé taal taal ñu si ma taal waaw xaaral xaaral ñëw ñu dem sama biir mu topp mu dem yëkkati xaalis mu bëri jox naan ko xayaaka allah xayaaka allah xayaaka allah di ko ñun tey suñu boroomi alal fan lañ leen di gis ñu ko Dubai ñu ko Maroc ñu ko ko fee ñu ko fee waaw tam suñ xewu diina jot ñoo fay jiitu sëriñ bii ñu ngi sàkku nga ñaan sëriñ bi nangam nangam zéro kon sunu mag ñi bàyyi loolu sunu mag ñi tey shabab shabab yi leen dëggal nuñ toll shabab bi daanaka ñëpp fi ne ji dóor na leen arudal xaay dem jëli fële beneen waay boo xam ni tekkiwul dara nga def ko numuusa def ko xudwa mm-hmm. waaw kon ilaa ayna nax zaahibu ilaa ayna laa qaddar allah laa qaddar allah ila alhaawiya laa qaddar allah ilal xaq suñu réew mi xoolal li fi xew ren li fi ren rek laa li fi xew ci tooñ ci rey dóor ay ay bakkan ci ci gaañ ay nit ah ci loo xam ne teguwul fenn ci ay caaxaan rek waaw fuñ jëm fan lañ fan lañ jëm mais wala fi ne ko xamul koo jóge dañoo war a dellu dellu boobu nag ci tarbiya gi nga doon wax moom la ñuy wax al yaqaba al yaqaba al yaqaba mooy ci tasawuf waa ji dem dem ba yàgg mooy ah! taxawal man mii naa xool samay mbir mooy première xutba jéego bi jëkk ci tasawuf mooy boobu waaw nga daal di commencé nag ah man commencé def muhaasaba sa bopp ay àgg ci waaw tey ñaati miskin laa sarax man millionnaire tey ñaati nit laa tax ñu lekk tey ñaata nit laa tooñ tey ñaata rakka laa julli naafi yooyu yëpp nga réglé sa bopp balaa ngaa tëdd bu ko defee nag léegi xujub bi commencé di muree waa kiiraay yi di muree naa commencé ne kon bu fekkee kat naa mart kon marte ba sëkk daal di ñëw kon nan laay def ba nekk saadiq bu fekkee santoo woon yàlla marte ba shukr daal di ñëw yooyu yëpp di ay yoo war a jaar benn bu nekk nga maîtriser ko soo ko jaar Oustaz Alioune Guèye nee na ma mag mi Moussa ñëw da ngaa bëgg ñu tarbiya dañ la naan yow ndax mokkal nga suuratul munaafiqun nee na boo mun la tare izaa jaa'akal munaafiquun qaaluu nashhadu ñun la taxawal dañ boo suñu nashhad ñun la taxawal lan nga ne an naqs ñu la noo defar sa naqs chiin gi ak shahwa noo defar sa bànneex haa gi mu mooy hawan nafs foo ci toll waaw topp sa bakkan fu la jëmee nga jëmee ko daal bi lu mooy ak duniyaa fon foo paree do àddina mu ni bu jëkk ku parewul ci yoo ñeenti koy noonu duñ la tërbi hmm. tey da ngay ñëw gis benn waaye mu jox la ñaari tur ñu la dugal ñaari tur ñu la dugal nga commencé dóor dóor dóor dóor bu subaa nga yuuxu ñu dem la imam Rafaa yi ne nee sax bay dem oh. soo yooyu dañ laa wax dañ la wax ne war ngaa pare ci àddina war ngaa pare bukkan war ngaa pare ci bànneexu bukkan war ngaa pare ci an nafs te al ammaara bi suu waaw boobu te ñun dañoo ni kii tarbiyewu ah day tarbiyewu pour àgg ci loolu te ndekete loolu yow mooy mun talab fi nga war a déparé kon nañu jógaat surtout surtout ñi ñi nga xam ni ay ndaw ngeen te yëngutu ci xam-xam waaw yéen ñiy jàng xam-xam kan moo kan ci yéen mooy koo bis buy jël daal si day rek mu yor njàng Oustaz Ibrahima Sarr moom wax ci gémmiñam ni musuma jël dars fekkul ma yor njàng mun ko ah mu ne musuma jël leçon te fekkuma yor njàpp loolu kan ci ñun tey moo moo toll ko Baye Talla Fall nee na waxuma la toll ko waaye yéen da ngeen di toog ki leen jàngal taxaw da ngeen di toog ki di jàngal taxaw <laughs> mu njàng moom fu mu jëlee mu ñun bu ñu daan daan dañuy sëgg ba pare du ñimee def nii sëriñ bi toog orma jooju anam te baal guddal naa baal leen donc <laughs> Amadou Mokhtar masuulee bi mi ngi ci mu ngi ci yéen yàlla nañ ci yàlla ji yàlla na yàlla dëgëral dëgëral mbooloom ji ma mbokk yàlla na leen yàlla dëgëral yéen ñëpp subhanakallah salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabi ajmahin mbokk yi ñu def nañu daa def mooy door di sant allahu ya rahman julli ci sang bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne cheikhu Thiénaba maam amari ngu ñand ak sekk liggéeyal na ko lool ba mu am ndam fii ci réewu Soudan waaye mënuñoo ñàkk euh, ma bañ a kañ Cheikhuna Tidiane Chérif ndax kuy xuus ci sirru xam ne mooy xutbu rabbaan fees na dell canaba ba yokkuñu imaan mawri ndooña teel a xëy ba diine baawaan euh, noonu la ñuy nuyoo ak a ziyaar ak a wormaal sëriñ as fekk Mori Ngoné di ko ñaanal lii mooy lii nga xam ne moom la war a wattu yàlla may ko ci ndam ci zaahir ci baatin xam naa ne wax après suñu sëriñ bi dana metti lool ci xam-xam bi ci fasaaxa bi di la xamal ne leer na ma ne ñëpp bu ñu mënoon a dindi nekk seen xol tey dinañ la wax ne euh, ma namoon nañu la waaye tey xol yëpp fees na lépp lu nga xamante ne nii wax nañ ko fi ci ay kaddu yàlla na yàlla ful mu doon ay wër gi yaram ak gudd fan ci barke man man nag xam naa damay euh, maanaam jéem lañu dugal ci mboor bu ñu xoolee ci mboorum canaba ci histoire canaba gis nañu ne ñu bëri ñu ngi maanaam baaxoo di départ 1871 mais dafay baax tey ma yóbbu leen ñaar fukki at ci ginnaaw pour ñu xam ne ndono li ñu téye canaba ndono lu wóor la ndono euh, maanaam ndono bu sagu la te lépp diine kese la muy topp ak sopp bu ñu xoolee ci ginnaaw maanaam vingt ans ci ginnaaw euh, tubaab yi dañu amoon maanaam benn projet bu ñuy tuddee Afrique occidentale française ñu war koo samp le 16 juin 1895 looloo tax ñu yónni bu déjà en 1854 alors formé ko sax muy làkk lootul arabiya ay lool ci arabe maitriser les dix formes de faala maîtriser maîtriser aussi la grammaire arabe parce que dañu ne pour nga dominer population il faut nga làkk seenu làkk wala boog làkk bi nga xam ne mooy support de communication seen diine te xam na ne mag ñooñee depuis Thierno Souleymane Baal dañuy maîtriser woon parfaitement loo jula arabia loolu moo waral ñu former ba un militaire maanaam indi ko dès 1854 maanaam pour wax leen ne li Cheikhu Thiénaba donn alors am na lu nga xamante ne ni vingt ans ci ginnaaw man tubaab yi jéemoon nañu ko looloo tax fajar bi mu ñëwee mu créé madarsa xam nga madarsa seen boo ko xoolee c'est une déformation de madrasa ca racine ba darasa ah euh, li tax mu créé ko woon pour mu am ay jullit yu tubaabe waaye man ñi lànk mu créé lu ñuy tuddee école des otages ku mel ni Yoro Jaw ci yooyu la nekkoon lii yépp nag pour que euh, li sëñ bi wax léegi nga xam ne dañ lay sóob ci nashadu nga xam ne boo buggee lii foog nga bàyyi lii hmm. loolu la tubaab bi maanaam teel a ñëw euh, ci boo ko xoolee ci 1854 bi Faidherbe bi ñëwee ci la créé li nga xamante ne ni moom mooy euh, boo dee xool école des otages mu créer waat euh, li ñuy tudd école des fils de chef maanaam loolu sax boo ko dee xool maanaam waaw ci loolu sax ci la ñuy gisee ku mel ni doomi Lat Joor nga xam ne mooy mbaaxaan foofu la ñu ko formé pour mu mën a nekk li nga xamante ne nii mooy chef de canton euh, ci biir Bawol euh, mais loolu it moo indi maanaam première bataille de Médine ci nga xamante moo jàmmarloo euh, ak le corps d'Espagne fa lañ ko njëkk a expérimenté avant Samba Sadio en 1857 1857 El Hadj Omar Al Foutiou la le Foutanké ca xeexee waaye mu perdre bataille boobee ñu ñëwaat fu ñuy wax maatam la bataille de Matam en 1858 mu perdre bataille boobee moo waral kii di El Omar def lu ñuy tuddee ci euh, tukkulóor fergo omarien mu génn Fuuta Tooro complètement ñu gis ne nag maanaam ginnaaw loolu aussi euh, ba ay pexe am na ba euh, ñu jéem a ba la boog ñu faagaagal ki nga xam ne moo nekkoon taalibeem di Maba Jaxu Ba ci bataille bi somb en 1867 ñaari buur siin yooyu dafa am am na buur siin kumbandoo fen famak moo xeex xeex boobee bokkul ak taalibeem Sëñ Tuubaa buur siin kumbandoo fen ñu koy wax buur siin kumbandoo fen fandem mais diggante boobu dafa am lu am solo foofu ngay roccee ndonay euh, booy Seexu ba wala boog fa ngay jëlee ndonay Maadiyu hmm. mooy que ne le 5 septembre di bisu ajuma 1862 ci la Muhammadu amee ba nelaw mu jël ndonali jox ko ñaareelu doomam muy maam Ahmadou Cheikhou Ba wala boog Cheikhou amadu Ba damay wax ne na bu leen neexee ngeen ne Ahmadou Cheikhou boo yeggee ci baji su booba problème du am doo ko jaawale ak ku ñuy Ahmadou Cheikhou Taal bu El Hadj Omar ak maanaam ki nga xam ne mooy Ahmadou Cheikh bu Masina looloo tax mag ñi demoon ba dëpp seen bos di ko di ko waxee Cheikhou Amadou pour ñu xam ne seen mos di ko sant Taal. du it ki nga xamante ni moom moo nekk fële dëkk euh, euh, bi ñuy wax Masina bo sëñ bi dafa wax lu am solo dafa ne maanaam ñun li mag ñi laxasaay woon man à la fleur de l'âge ñun ñi naka lañuy laxasaayoo pour joxe ndono li loolu c'est une concaténation il faut ñu remettre en cause suñu identité pour xool est-ce que méngoo na ak ndono loolu loolu am solo la boo wolof day wax ne maanaam timis ci guddi gi la mais doon guddi moo gën timis hmm. moo gën timis euh, nu gis ne foofu bi maam Ahmadou Cheikh Ba di jël ndoñoli ñaar fukki at ak juróom ñaar kese la amoon 27 ans la amoon. 27 hmm. ans mais parce qu'il est né en 1835 1862 mu doon loolu 27 ans bu ñu doon xool tey dañu gis fii ko am ñaar fukki at ak juróom-ñaar hmm. nga gis boog. ni noonu lu diisee waaye mu attan ko te ñime ko te fësal ko ba bisu alxames 11 février 1875 entre 8 heures 15 ci suba si kon da ngay gis ne kooku maanaam njàmbaar la euh, ci loolu ngay gisee ne entre 1869 bi ñu njëkkee taal jiyaat ci kokki parce que xew kokki xeex yu bëri la mais boo duma ci mën a ñëw mais bu njëkk bi bisu samedi la 26 juin 1869 boo ko bëggee yër na nga dem archive nationale du Sénégal muy 13G 141 euh, ñu teg ci dimanche le 27 ñu teg ci altine le 28 juin 1869 ñu lakk Wuro Madi boo ko waxee da ngay gis ñoom ñu wax naan euh, maanaam malgré lakk nañu lépp néegum ñax ba moom dafa mel ni maanaam yàlla ci boppam mooy wane ne kii missionnaire la bu nga xamante ne ni ci suñu euh, boo dee xool ci suñu kaw la jëm kon loolu nekk lu nga xam ne lu yéeme la woon donc. le 26 juin 1869 ba maanaam Samba Sadio di le 11 février 1875 alors Samba Sadio boo ko buggee yër demal 1 des 34 xeex ba yàggul c'est trois quarts d'heure mi ngi commencé 8 heures 30 ci suba jeex 9 heures 15. ultime mu ngi mel ni benn millionaire tey bu bàyyi entreprise yi ak ñi muy. ak xamul lu muy fekki maam ax mu ñëwee kii ñëw li ma yor moo koy yore mais dama koy nëbb pour l'instant parce que c'était officieux mais dinaa xaar le 10 février mu doon lu officiel lu ñëpp xam mais li gën a yéeme mooy 1871 maam Amadou Ngoné Ndak Seck damay wax souvent li lay wax Souleymane ma ne ko mais nañuy woowee mag ñi nan leen daan woowee maam Amari Ngoone Ndaak Seck boo nee Ahmadou Ndaak bi dinga nga réeral nit ñi les historiens pour jëli ka ko duppee ca taarix Amari Ndeelu Kumba Faal Faal Maajoor xeex batayu Bungoy ci fit wi ak jom ji mais di nga réeral historiens yi ci aussi ku ñuy wax Damel Fatim Goloñ Faal ci fit wa ci mbaax gi foofee ngay génnee soxna su dàq soxla maam ndaak faat boo bindoon ab lettre tey ne lettre bi ma dem ca sëñ Murtada Seck dem ci Baye Talla kon ma tur yi ñu donn ci mag ñi loolu bokk na suñu ndono bu ñuy sàggane di ko jéem a arabisé te ku mel ni Baye Kabbu Ñang dafa neex soxna nooy Seck nooy même boo gisee président Diomaye sax mbir la mm-hmm. parce que tuddul Diomaye Jogomaay le maître des eaux mm-hmm. mais mag ñi ñoo ko contracté muy joomaay comme soxna Nogay ñu ne nooy kon loolu jar naa euh, je peux jubbanti ñu gis ne ndono li nga xamante ne ni Cheikhou Thiénaba bana ko mooy maanaam dafa bàyyi ndono ci bay daane du ci xaj mm-hmm. mais Cheikhou Thiénaba dafa maanaam bokk ci xeetu shérif bu yéeme maam shérif musaahut mu njëkk ma sekk yoro di musaahut deuxième masayeer maasi gi anta maam daak ñoom ñaar meññu góor yàlla Cheikh Thioro Mori Ngoné ak sekk Mori Ngoné gi njëkkiwu ba Samba Sadio lu ne def na ko fi mais mu bàyyi beneen dono maa ngi ci xeet maa ngi jëmaat ci meen ci wéy juróom wu jigéen nga xam ne maamaate maamam mooy septième dammel du Kajoor les Fall Major mu bàyyi maanaam garmi gi aussi nga xam ne boo ko doon def ci taarix di nga dem ba ci Amari Ngoone Sobel mi jur dëcc fa njóog euh, euh, euh, di nga yéeg ba ci dëcc fa njóogu Fall mi ñi Amari Ngoone Sobel mu xeex ba tey dànki en 1549 libéré le Kajoor face à lël fuli fak Njaay boobee la histoire de Thiénaba door au seizième siècle bala ngay ñëw ci Thiénaba gii mm-hmm. kon loolu aussi ndongo la bu nga xamante ne ni xam ko dafay baax mu nekk beneen ndono bu nga xamante ne nii mooy ndonoy xam-xam moo tax mu bàyyi am-am ndax mag ñi dañu ne ku xam-xàmmee di nga mën a xamle moom la sëñ bu doon wax léegi ne léeg-léeg ñaari baat rek kenn yuuxu fekk ne waaw mais boo xàmmee booba day fekk ñu xuus loola ci xam-xam mu ba ko fa euh, loolu moo tax ginnaaw li xew lépp nga xam ne du ma ci mën a duma ma ci euh, je pense que dama koy dama koy jéem a résumé mooy dafa moytu sañ-sañ boo xoolee tey jamono ji ñëpp sañ-sañ la ñuy doxee sañ-sañ léeg-léeg sax ñu ne yow amoo fit wax da ngeen waaye boo yow amoo fit waay te fit du xam-xam <laughs> fit mooy li gën a dangereux lépp wolof bamtu na nga def attention gis-gis sa gis-gis bala ngaa wax dafa fekk nga xam te loolu euh, euh, je pense que tey jii boo bàyyiwuñ ci xel mais sañ-sañ la Cheikhou Thiénaba faxas wóolu kaamil maanaam baatub kaamil est-ce que boo demee ci réew arab yi da nga ko fa fekk je pense que mag ñi ñoo ko créé kaamil li mat mu yër kaamil wóolu ko daa tombe ca aaya ba wóolu aaya bi rëppatal façon naar góor yi dem de 1871 ba 1875 muy ñeenti at ak weer ak bis c'est important loolu moo tax bi ñuy bind un peu histoire du Sénégal dama leen ne 1882 jamonoy noor sanc nañ Thiénaba Cheikhu Thiénaba duggee fi juróom fukki at ak benn 51 ans waaye taxawee Samba Sadio 45 ans di Adama dugg Thiénaba 1882 am 51 ans bi historiens yi bind naan ay sëriñ làmb am na ñi jege buur yi di leen defari téere ñu ne déet am na sëriñ fàq taal ñooy fàq ah di taal daara yi waaye jige gaay yi may leen attention am na troisième position bu ngeen fàtte ñooy nomba one mooy gaynde ak diine yi nga xam ne ay génne lañu mas doon mosuñu arrière ci loolu nga xamante ni ña nga ca ci loolu moo tax tar tarbiya cheikh bi nekk lu am solo euh, boo dee liir ku mel ni Éric Geoffroy ak spécialiste yi nga xam ñoo liggéey ci wàllu tasawuf maanaam dañu ne diine lii tax mu leer dañu mën koo accepter mooy la tasawuuf mais parce que ci li mu reposé muy taskiyaat al nafs dafa yéeme day tax nga am noble caractère moom la ñuy wax xulu nest du noonu la mais dafay tax aussi nga jige suñu boroom xurub parce que boo jigee ragal mais aussi daf lay may lu yéeme lu nga xamante ni gars yi war nañ cee bàyyi xel mooy topp ak sob maanaam da topp yàlla roy rasulullahi kese maa ngi koy wax keroog sëñ ñaame ma ne ko boo xoolee Cheikh Rafal maa da daan def aalum naan fii daal lu ñuy roy ak lu ñuy romb rek a fi nekk mais Thiénaba lu ñuy romb lan la xolloowul ñoom da roy te loolu mooy li nga xamante ne ni euh, je pense ñun ñi ñëpp boo dee xool war nanu ci fi may jeexalee mooy Thiénaba gii biñ ko sancee maanaam Cheikhu Thiénaba fukki bant yeeg ñeent yi mu am ma ñett lañu bàyyil ñett muy Omar Talla mm-hmm. ci maanaam njom gi ni mu tasee muqaddam yi ni mu góor góorgóorloo ci période bu metti entre 1894 ba 1946 lépp la fekkee ay peste ay deuxième guerre mondiale première guerre mu tëye mbir yi mm-hmm. mais aussi mu fekke une administration avec plus de trente gouverneurs mu tenir waaye nga ñëw ci maam Ibra Penda Buyo nga xam ne né à Diayane en 1879 mu donn turandoowam maam Ibra Penda bu yóbba ci fasaaxa ji ci am fulla bi ci jom ji ci bëgg mag ñi ak nangu mais seen Ndike ci képp koo gis tey mu ne man a fekk na xaw ngaa jaar ci moom mu am lu mu la jox ci xam-xam alxuraan bi ci fiq bi risala bi naxu bi xilmu nujum ak xeetu xam-xam yooyu nga xamante ne peeg na ko toog na ba te ñëpp warmaal ko waaye moom it mu warmaal ñëpp ñooñu c'est des références yu nga xamante ne ni mënta ñàkk mais ñett ñett yooyu ma wax tey euh, muy ñett bant yooyu góor yàlla yooyu dafa méngoo ak àlluwa àll ba Allahu akbar waaye dafa méngoo ak suuf suñu wër nga xam ne dëkkoon fi rek problème la muy jàkk ak Fandène ak Diobass muy ñetti canton yu dangereux mais mag ñi wóolu suñu borom man damay wax ne nit mënta am ba am lopp yàlla ah bis bu ngeen gisee fii ku am ba ne am naa lu ëpp yàlla ngeen woo ma man nit mënta ñàkk ba ñàkk yàlla waaw ndax rahmaan ruuxun mu ngi ci yow kon loolu lu mat a bàyyi xel ci fi may tëjee mooy maanaam malgré bi ñu nekkee Thiénaba euh, ñu am même les renseignements am ay dossiers sur les affaires musulmanes euh, ku ne ni William ponti daf ko jiitee ah, ak ñooñu ñu nga xam Paul Marty mais Paul Marty li ko jaaxal mooy nee na dugg naa Thiénaba xuus naa ci mbooy gi lenn moom a jaaxal te c'est pas normal ah ñu ne ko lan mu ne képp ku am une approche euh, maanaam positive ma war ngaa bàyyi xel Thiénaba ndax ci mbooy gi du ñu fa mën a sampee maanaam jumaa ju splendide nii pas normal boo demee pas 63 64 da nga ko fekk te boobee tubaab yi ak les moyens. bi tonu ciment di jon di euh, maanaam di jar fukki dërëm ñu amoon nañu moyen construire palais bi mais 1902 ba 1907 ñuy soog a noppi palais bi fii mag ñi 1906 en 6 mois ñu pare kon loolu moo lay xamal ne maanaam Pastef di ñuy woote Thiénaba amoon na ko déjà dès dès 1900 li may wax nii boo demee fu euh, mu du Sénégal 15 G 103 di nga ko. fi may jeexale mooy kon nanu ma fonk mag ñi te doyloo leen te wóolu leen léeg-léeg ma wax yëfi dof gaa yi di dama leen ne ab canna ba nit mënu koo gën ci yoon mais parce que dana jaamu yàlla wóolu yàlla ba calculer tuwul safara ak ajjana foofu ñu egg foofu mais parce que li ñu war la ñuy def nañu topp mag ñi te wóolu leen parce que nag xaleel bu nekkee ci ak mbooy mooy ñax gi nga xam ne nekk na fa ren ba dëwën bu ko dara laalul ah suñ bi dangay jàpp ne am na garab gu mag gu ko tiim mooy man waaw kon maa ngi ñaan euh, ci barke man mi ah, yàlla na yàlla yii yàlla yor yërëm a ngërëm ginnaaw bi ñu rombee cent onze ans yaakaar fii wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wasalaatu wasalaamu ala nabiyil karimi ñu yëkkati nuyoo di ko teg ci loxol suñu kilifa waaye suñu xarit suñu doom ndey sëriñ Ibrahima Seck xalifa te di ko félicité ci waxtaan wi nga xam ni yóbbu na nit ñi fu sore sori xam naa il faut ñoom oustaz du Makhtar ñoom maam Bokar ak ñoom Mamadou fexe ba bu gàmmu gi weesoo ba nit ñi noppalu tuuti ñu organiser ko conférence bu am solo ci pénc mi incha allah soxla nañ ko euh, man contribuer wu ma ndax wax dëgg yàlla li sëñ Xalifa wax sëñ Daawuda wax ko Euh, doy na sëkk euh, ñu toftal ko ci waxtaan wu xóot wu xam wu tegtale wi nga xam ne Oustaz Amadou Makhtar euh, baaxe nañ ko man damay jël kàddu rek en tant que président commission scientifique bi nga xam ni saa bu gàmmu jubsee dañuy weccente ay xalaat ba tënk ab tem léegi bu ñu tënkee thème ba pare nag li des ci liggéey bi lépp Euh, Mamadou Seck bu sëñ Modou Rokhaya moo koy doxal lii fi xew lépp bi weer wi teroo ba léegi moom la man léeg-léeg ma ñëw déglu léeg-léeg ma toog ca kër ga di déglu waaye daal ñoo ngi koy félicité bu baax a baax a baax ci liggéey bu am solo bii muy def euh, tàmbali dafa metti mais lii lu original guddi gu nekk nga woo boroom xam-xam mu développé loo xam ni lu bon bon dina des ci xol yi ak ci xel yi liggéey bu am solo la doonte njaalbeen gi day xaw a mel ni léeg-léeg lu wéet waaye incha allah bu demee tuuti dina doon programme institutionnel boo xam ni waxuma la tariixa bi waxuma la dëkk bi mais réew mi yëpp dinañ ko bàyyi xel euh, euh, moo tax ma bëgg a dellu si ci thème bi nga xam ni moom la sëñ Mamadou ak borom xam-xam yi mu ko seqaloon tasaare muy euh, euh, éducation paix sociale prospérité euh, les enseignements de l'islam l'exemple de Thiénaba boo ko firee ci wolof muy tarbiya ak jàmmi pénc mi ak naataange njàngaleem diiney islaam exemple Thiénaba boo jàngatee thème bi da ngay gis ni dafa dellu ci ñaari dimension lii di espace lii di dimension euh, lii di tolluwaay euh, lii yéeme nag mooy Mamadou ak borom xam-xam yi ni ñu tëggee sous yi daf cee am boo xam ni ñu ngi ko tudde éducation islamique dimension et espace defe na kayre moo ko doon euh, def maanaam njàngalem diine wala tarbiya islaam boo ko delloo ci ay tolluwaay ak ci espace mu mel ni tem boobu garab la goo xam ni dafa meññi ay bànqaas bànqaas yooyu nag boroom xam-xam yi dañoo fexe ba génn ci ay dimension ñeent ak ay espace wax naa leen ci njàlbéen ni tem bi dafa am ay dimension ay tolluwaay ak espace sous thème yi nag fexe ba dem génne dimension yooyu muy tolluwaay yi génne espace yi moo tax boo seetloo dimension bi njëkk a feeñ ci waxtaan yi mooy dimension philosophie éducative Amath Dia moo ci doon waxtaan ñaareelu dimension yi borom xam-xam yi génne mooy dimension travail oustaz xaarfaal euh, lañ ko dénkoon ñetteelu dimension bi di éducation spirituelle oustaz Ibrahima Sarr moo ci waxtaan ñeenteelu dimension yi borom xam-xam yi feeñal mooy science ak importance am euh, Madické Niang doon ci waxtaan boo gëstoo ba léegi da ngay gis ni espace moom ñaari espace rek la suutam yi feeñal yenn ci suutam yi dañoo dellu ci aalam ci monde bi saa bu ñu tëggee sujet bi ni islaam moom échelle bi mooy àdduna bi ndax islaam moom échelle am foofa la toll am thème yoo xam ni nag dañoo yam ci canaba saa buñ ne canaba wala maam amari ndaak espace bi mooy école bi euh, li ci yéeme mooy oustaz Amadou Makhtar bi muy synthèse bu rafet bi dafa def liñ naan dëgg dëgg synthèse ndax dafa cible école de canaba école canaba dafa feeñal moom bi muy waxtaan dimension ak espace yi nga xam ni sous boo jël rek fës na ca pour nga dégg lool nag da ngay définir lan mooy école def na ko école pour mu am il faut ñeent yi tase il faut am borom xam-xam mu bel ni maam Amari Ndaak il faut mu am espace bu mu ko samp Thiénaba kon saa buñ ne exemple Thiénaba rek espace bi ñu doon wax feeñ na ci synthèse u Oustaz Amari Maxtaar ñetteelu dimension bi mooy méthode façon njàngle façon njàngale Thiénaba oustaz wax na ci boo ko bëggee tënk mooy njàngale moo xam ni day jël pas-pas yeew ko ci sab xol ba say cër làggi ci ba foo dem yóbbu fa ni nga mel ak ni ngay doxe looloo tax ñu naan nituk canaba bu nekkul ca naba it fu mu dem fu mu nekk ñu xam ni kii nituk canaba la résultat tarbiya maam Amari Ndaak loolu la mooy méthode am kon gis nga école bi ko sëñ Amadou Maxtaar waxtaanee ba pare génne na espace mooy fii ko boroom xam-xam bi di maam Amari Ndaak samp génn na ak dimension muy dimension yu bari yoo xam ni mënuñu leen a waaye mooy dimension yoo xam ni bu dajee ci woy jàng bi wala ki ñuy tarbiya pas-pas dina yeewe ci xolom ay cëram làgg ci ba espace ba mu manti dem ëllëg génn espace bi mu juddoo mu yóbbaale fa jikko yooyu kon oustaz jërëjëf danga ñëw ñoo synthétiser thème bi feeñal dimension yooyu nga xam ni ak espace yooyu nga xam ni sous boo jël rek indi na ci benn kon loolu mooy richesse su euh, li ngeen doon liggéey moo tax Mamadou ma lay conseiller euh, waxtaan wu nekk fexeel ba borom même buy oralu mu defar texte jox la mooy tax ëllëg nga am archive yoo xam ni dañ naan lii at sàngam xaley Thiénaba borom xam-xami ba lii lañ doon waxtaane muy loo xam ni nag lu valeuré la te lu ñu gën a dem muy gën a valeuré loolu daal laa ci doon teg euh, di jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. xam naa ni kàddu yi bu mënoon a ñàkk sax duñ ko yëkkati ndax euh, ñi nga xam ne ñoo fi intervenir ci suñuy kilifa seen kàddu mboolem fu kàddu war a yegg seen kàddu yegg na ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jaare cant geeg ngërëm geeg nuyoo bi ci suñu wayjur bàyyi xalifa Ibrahima Seck di béggee ak a kontaane kàddu yi rafet yi nga xam ni yëkkati na ko yaakaar naa dundalaat na lu bëree bëri ci xolu mboolem ku fi teew ak ku koy déglu rawat na suñu bos ñun ñu ngi lay sant bu baax ci loolu motivé dinañu motiver ci lu bëree bëree bëree bëri mi ngi France waaye ñun ñi nekk fii mu xam ni ñu ngi yëngatu ci xam-xam yenn saay mu jël ci ay téere yónnee ko France ba fii ngir jox ñu ko ngir ñaaxee ñu ko loolu nag naa koy seede defal na ma ko waaye xam naa defal na ko ñu bëree bëree bëri lool nag ñu ngi ko ci ndokkeel di ko sant bu baax di ñaan yàlla subhanahu wa taala fanam di gërëm suñu conférencier docteur al oustaz Mouhamad Moukhtar Diop moom itam ñu ngi koy sant bu baax sant bu wér a wér wér ndax bi ñu ko tàmbalee ba fii ñu toog maam toqiwul yokkiwul yenn saa sax ñu yeex koo informé mais moom dafa jàpp ni mooy première acteur ngir doxal lii ak docteur Souleymane Dia moom itam amuñu fayam amuñu cantam <laughs> bi may euh, bind sama mémoire am na lu ma wax ci ci moom ci ak jàppale ak li mu liggéey ci histoire kër gi koo xam ni di nga faral di gëstu ci histoire kër gi di nga xam moom liggéey bi mu def ni mu ni mu amee solo ak docteur Daouda Diop nga xam ni ay récit oral maanaam tradition orale lañ jël jox ko valeur scientifique mën nga cee référé wu te kenn du la jëm ci wàllu xam-xam ginnaaw ñoom def nañ loolu ci kër gi yéen itam teg ngeen euh, cëslaay bu am solo boo xam ne mën nañ cee sukkandiku ngir développé lu bare bëree bëree bëri bëri waaye mu jiite comité scientifique bi ñun ñu nekk ci ron suufam di njabootam luñ def rek jàpp leen ni moom lañ koy defal moom lañ koy defal ak ñi ñu ko seqal ñëpp di nuyu tamit docteur Daouda Diop. al oustaz mo maam Bokar ak mbooleem ñi fi jaar ñépp nag am nañ satisfaction totale ci li fi jot a génn waaye di wax rek ni euh, dañuy wax ni xelum doomu aadama dafa mel ni jant jamono bi muy leeral benn part ci suuf si beneen part bi mu ngi ci lëndëm maanaam nit lu am xelam rafet rafet du ñàkk am yu nëbbu cim xelam du ko gis ñi nga xam ne nag ñoo ko wër ñoom ñoo koy dimbali ci leeral xelam ci yenn côté yi nga xam ne xelam du ca yegg loolu nag mooy yéen ñii mooy ñiy déglu lépp loo leen gis nii ab dox bu ñu war a gën a def la ci seen xam-xam ak seen expérience na ngeen ñu na ngeen ko dolli ñu mën a gën a joyanti liggéey bi ba mu àgg fi ñu ko bëgg ndax damay faral di wax ni ku woote sa conférence sa kër bu la neexee wax say xalaat mais ku woote ci péncum Thiénaba amatoo droit wax say xalaat dong yam ci ndax lépp loo wax dafay engagé képp ku aju ci Thiénaba mu yëg ak mu ñàkk yëg kon amuñu droit di man rigueur ci li ñuy def dañoo war a def lu ñu man ngir lu mu mat rek ñu ñu xeeb loolu nag ñu ngi ciy xaar mbooleem koo xam ne rek ak côté boo mën a toll rek correction buñ ci war a def nañ ko def ñu avancé continuer xëy na perfection yombul mais ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala même bu dul ñun itam ñëpp ñëw suñu ginnaaw tamit loolu amee ko ci ñoom yéen ñi nga xam ni samay mbokk ngeen ñu maase wala ñu mag leen yëngatu ci xam-xam te ñun ñëpp ànd gëm ni liggéeyu mag ñi watalaal suuf sama bàyyi sëriñ boo wax na lu am solo nee na mboolem loo xam ni dana jur échec suñu société yi tey daanaka yëpp dajaloo na ci te ñun ñu jàng taarix tuuti xam nañ ni lu ne taxaw na ci àdduna lu ne système boo système ju ne taxaw na bëri na système yoo xam ni dawla abbas rek def na fi cinq cent ans wala lu ko jige te dafa mujj daal di nërmeel lakk ko nërmeel nag nuyu na ci suñu système yii te mën nañ ko bañ a fekke mais mën na koo nërmeel mën na koo nërmeel faaw ñu d'accord ci loolu kon nag lan lañ war a def concept bi leen di bis la jàngale mooy rénovation tajdiit tajdiit bu jotee boo ko deful da lay imposer boppam te bu boobaa dootoo ko contrôler bu fekkee waajal ngay sa bopp nag tajdid bi forcément dafay am mais yow day da koy mën a contrôler sinon rek day ñëw ëpp la doole yow da ngay effacé wu la leen ñëw su ko defee loolu ñun dañoo war a attirer suñu attention ñun ñëpp su ko defee ñi ngi ñaan lépp luy xamantaal def nañ ko fi yàlla suñu boroom def ko ci cadre boobu ñu ngi sant bu baax ñu bokk bokkaloon liggéey bi sëriñ Talla Niass sëriñ Baye Saliou Mbengue ñi doon jàng yu nu mayit bi ah, sëriñ Mbaye ak ñëpp rek ku ma fàtte na ma jéggal waaye daal di wax ni docteur docteur Souleymane Dia bàyyi xalifa Oustaz Ahmadou Mokhtar Diop lépp loo leen gis ni buñ ko joyante mu gën a jub ndax ñu ngi def lii waaye man naa sax weesu fii te yéen xam ngeen li ngeen fi génne nii rek mën nañ nekk ci yeneen cadre yu gën a ëpp niveau bii donc ñu ngi leen di solliciter lépp loo leen jàpp rek ñu war nañ ko doon la ñu dolli ko Serigne Cheikhou Amadou Seck porte-parole mi ngi fi woon ci ndigalu sëriñ bi dem na bàyyi doomu sëriñ bi mu ngi nii toog muy délégation bu bàyyeekoon sëriñ bi waaye comme fan yëpp dafa nekk ci ay activité affaire bi xaw a métti ci moom ma ne ko ñi fi nekk yow lañu fi nekkal sama bàyyi xalifaa ngi nii bu fi teewee teewal na fi sëriñ bi teewal na fi boppam teewal na fi kilifay dëkk bi yépp kon mën na laa wuti ci lépp ma roxsaal ko mu dem kon ñu ngi sant bu baax di gërëm sëriñ bi di gërëm njabootam yépp lépp loo xam ne jub na ci wax ji daal ñu ngi koy voilà am na benn activité boo xam ni day dugg ci même cadre bi te mooy conférence bi ñuy def ci bisu gàmm Serigne Makhtar Seck bokk ci di ko organiser ànd ko ñun ñii ñëpp ñi ngi ñaan ku ko sa jot may na nga ñëw teewe ko à partir de 19 lay tàmbali fii ci buntu jumaa ji ku ko mën a teewe nga teewe kenn ci ñun moo koy def muy usas euh, Alsane Ciss lépp loo xam ne jub na dëng na ñu ngi koy jégalu hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad sujet bi thème centrale bi lay ñëw defar moom lay moom lay mooy tarbiya maanaam euh, éducation paix sociale et prospérité les enseignements de l'islam et l'exemple de Thiénaba boobu lay ñëw traité ko xëy naa dina ci indi yeneen poñ yoo xam ne dina donc kon ñi ngi sant bu baax di gërëm képp ku mën a ñëw daal teewee nañ ko teewee kon dañuy jox sama baay sëriñ al sëriñ Xalifa Seck mu ñaan ci turu sëriñ bi ñaan ci turu njaboot bi yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu